loolu gis ngeen li nga xamante ne moom moo nekk di am jamono ji en direct fii ci stade régional bu Matam xam ngeen ne petit à petit ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ñi war a occuper lii di podium bi ñu ngi installé wu ñu mën a am yaakaar ne peut-être d'un moment à ki nga xamante ne moo di le président du parti PASTEF Ousmane Sonko dina ñëw le président euh, du parti PASTEF dina teew amaana ci lu yàggul parce que ñoo ngi ko bàyyi léegi foofu nga xamante ne moom moo di eh, ca Wuro Sogi waaye xam ngeen ne entre Wuro Sogi et Matam ça fait que 7 kilomètres loolu soriwul yàggul ci oto kon loolu moom lañ. mën a euh, nemmeeku jamono ji euh, fii nga xamante ne kon moom moo di euh, fii ci Matam comme ni ngeen ko gisee waaye itam comme ni nga xamante ne noonee ngoon ko daal di constater. voilà kon ba tey rek ñuy wéy di leen dégtal en direct fii ci 313 digital li nga xamante ne moom moo di meeting bi waaye gis ngeen itam tey bi ñu demee foofu nga xamante ne moom moo di ca Ranérou foofu nga xamante ne itam mobilisation bi nga xamante ne moom moo fa amoon ci noon euh, Ranérou et Ourossogui ça fait plus de cent kilomètres bu si je ne me trompe parce que c'est plus d'une heure de temps euh, de de route boo xamante ne dañ koy def ci yoon wi ak caravane li euh, nga xamante ne noonu lay doxee. waaye teewul fekk nañ fa askan woo xamante ne génn nañu en masse fekk nañ fa askan woo xamante ne. voilà voilà rek ba tey ñuy di leen jëlal li nga xamante ne moom di réaction yi fii ci stade municipal bi kon ba rek maa lay nuyu yaa ngi en direct ci 313 digital tey noo gisee situation bi fii si Matam. avant tout d'abord ma ngi lay fay ma ngi lay remercier bu baax a baax a baax vraiment di am contentement si yéen quoi parce que li ngeen def liggéey bu am solo la quoi macha allah waaw ah, parce que à travers yéen ñu ngi am information depuis suuf ba léegi vraiment ñu ngi fii tey pour accueillir suñu leader quoi le seul leader de la nation sénégalaise tout derrière Ousmane Sonko mooy suñu fierté parce que ñu yee donc ñoo ngi fii tey su woo bu ñu wootee ñëw bu ñu wootee sax ñëw yéen ñu ngi ànd ak bu baax a baax bi laa laaj. gisee tey ak noo mën a jàngatee ñëw bi nga xamante ne moom Ousmane Sonko ñëw na ko fii ci Matam. bon man le fait que ma ñëw fii nii donc ça fait plaisir quoi billahi wala parce que bon école laa jugee nii sax dégg laa wàcc ma a ko il faut ma ñëw fii ko foo xam nga moom mag dafa yor ak programme su sa projet fu mu dem day présenter projet bi donc dañ ko xaar ñoom présenté ci programme Matam bi naka la war a demee loolu la ñu xaar quoi fii ay jamono ñu faree ci i boor ñoo fi daan doole maanaam jamono ji faree woon ci pouvoir bi tey ndax da nga jàpp ne Matam ak Ouro Sogui li ko wër yëpp dafa changé li nga xam ne moo di camp xam nga le plan wu gars yi leneen moo nekkoon seen xel ñu ne ko bandum mais pour man loolu ay affaire naxante la quoi la politique politicien wax politique la quoi du leen nax parce que nan ko bandum soo fi nekk mbokam la mais ku loo xamante ne mënoo def dara si sa mbokkam loolu amul sens daal donc Ousmane Sonko nag dafa ñëw xoolul xoolul xoolul xoolul dara dafa ñëw rek boo Sénégal yëpp def ko benn ndey ak baay bokk ndey ak baay xam nga loolu loolu moo am solo quoi parce que Sénégal bu ne bopp la kenn mënu ko xar ñaar quoi loolu moo tax Sénégal yëpp génn dem ànd a waaw merci beaucoup jërëjëf Sekoba Mohamed jërëjëf jërëjëf kon ñoo ko déggandoo jërëjëf di leen eh di kon mbokk internet yi ba tey rek nga suivre en direct fii ci 313 digital déjà Ndadiama mu ngi noonu di waaj a kon parce que ñu ngi noonu di mettre en place li nga xamante ne moo di le nga xamante ne moo di Ousmane Sonko ak délégation bi nga xamante ne moom la àndal ñu mën a yegg si ngir a amal li nga xamante ne. moom moo di lii di rassemblement bi lii di meeting bi kon yéen yi gis noonu ki nga xamante ne moom moo di DJ du moom itam di réchauffer petit à petit li nga xamante ne moom moo di public bi waaye itam gis ngeen mbooloo mi gis ngeen li nga xamante ne noonu la ñu toogee ci njëkk ci tey waaye itam ñeneen yi nekk ci ginnaaw ñoom itam di def seen yëf yi ambiance ndànk-ndànk ñu lee rek di wane kon tey Matam adiir yi selon li nga xamante ne moom la ñu gis fii nga xamante ne daaw da jigal mëkkante waat ak yow noo gisee Matam tey ak mobilisation bi nga xamante ne wër nga public bi parce que xam naa ne yaa ngi woon si biir noo gisee Matam. abet pël la daa xulu ne nakate laa daaw la luy loolu na ñi ñi jot nañu wutal leen continent waaye waaye waaye ma ne ñun am nañu ay maami naar am nañu ay na indo abet daal lu ma la mën a wax mooy xale nañ Macky nee nañ titre foncier bi jël nañ ko nee nañu changé nañu camp xale yi nee nañ 12 ans gisuñu dara nekk de 2000 2000 yi ngeen doon jox dañ leen doon nax wax nag waxu xale yi la yaa ngi woon ci seen biir di leen interviewé waaye wër nga presque stade bi noo gisee stade Matam en tout cas changement am na mais sant naa ne aussi wax naa si ay xale yu mature ay xale yoo xam ne ñoom xam nañ enjeu yi ay xale yoo xam ne ñoom nee nañ jamono gii 12 yoo xam ne amuñu mu ñu gis seen bopp ci réew mi nee nañ école amu fi xale yi nee nañ ndox bi da leen sonal xale yi nee nañ ceg rek a fi am xale yi nee nañ liggéeyuñu xale yi nee nañ Farba Ngom ak Moussa Bocar Thiam ñoo yàq fii du samay wax nag waaye wax yi nga xam ne moom laa a moo di dans peu de temps le leader du parti Pastef dina ñëw fi ñu jaar yëpp dama doon yaakaar na Fouta dina mën a mobiliser waaye mbooloo bi bëri na lii lañ leen mën a wane gëm état peut être le leader du parti Pastef effectivement kon mu di mu di mbirum titre foncier boobu nga xamante ne Daouda moom lañ doon wax sànq kon gis nga ko sànq ba léegi koo tàllal micro rek danaan la jamono ji euh, peut être buñ ko mënoon a waxee noonu dañ naan la peur a changé de camp mais jamono ji itam li nga xamante moo di titre foncier bi mën nañu jàpp ne peut être que changé na li nga xam moo di deux camps ndax nga xamante ne moom lañu gis fii ci Matam ndax li nga xamante ne moom lañu gis ci mobilisation depuis bi ñu duggee ci dans la zone di Fouta ba léegi mën nañu wax ne kon après peut-être que li fi jafe woon Ousmane Sonko ci ay jamono mu di mobiliser li fi jafe woon Ousmane Sonko ci ay jamono mu di fexe ba dajale fi mbooloo mu bëri waaye itam ñëw Fuuta dugg fi ba génn te créé luñ la fi problème euh, attaque luñ fi sa cortège wala euh, amoo fi ay jafe-jafe ngi circuler loolu lépp tey daanaka mën nañu wax ne jamono ji ça s'est révolu parce que depuis démb ba léegi ñu ngi ci zone bi depuis bi ñu quitté fële fii nga xamante ne moom moo di ca Kibira nga xamante ne moom moo di ci Bakel ba jàll fii nga xamante ne moom moo di ca Aéré Lao ak Sinthiou Mamambé